boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo wajjahtu wajhi liman akrimu bi sari mawlidi man fil bahri asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk julli di mbokk taalibé yi yéen ñi bëgg barkeelu si liggéeyub taxawub jumaawu Touba jëm si entretien wala maintenance wàccaa yu màggal Touba dundal weeru koor dundal gàmm saytu armée lu baqiya yi taxawu personnel bi si wàllub social ak yeneen waa association nationale muqaddimatul xidma Espagne ngir indi ak jàppandal si liggéey bii si ndigalu sëriñ afiya buso imam mi jiite daayira bi ñooy yëgal mbokk taalibe yi nekk si diaspora bi rawatina waa Europe ne nag mën nanoo wéy di yónnee seeni i barkeelu si transfert bancaire si compte association nationale muqaddimatul xidma Espagne ci Caixa Bank numéro ES 17 21 00 15 11 87 02 00 500 647 Biki Swift Caixa Bank BBXXX mbokk yi ku si nekk si Sénégal mbaa ci Afrique compte Orange Money yi mooy compte yi nekk si moomeelu daayira bi di 77 696 képp ku soxla yeneen i leeral jokkoo ak daayira bii si numéro yi ñuy bëgg joxe mosquée Touba 77 434 33 15 wala si 76 697 60 41 bu dee Europe jokkoo leen ak Serigne Assane Diop si plus 34 632 581 998 Serigne Fallou Dia plus 34 631 216 262 jumaay Touba ji nag Serigne bi nee na yàlla sunu borom may na ma ab tabax bu ne seng bu fi des ba aljana waxoon na it ne ku feeñ si liggéey bi. dinga di feeñ ba faw yàlla nañu yàlla dimbale ñu mën di si jëf ba faw te yàggal fi sunu kilifa gii Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ak mbooleem njabootu Serigne tubaa gépp jër ngeen jëf ñu bokk sant borom bi subhaanahu wa taala seer na amul benn bu dul war a jàmm bu dul moom noo ngi baalu aq ñépp te di leen baal aq te ñaan borom bi subhaanahu wa taala yal na bokk jéggal ñun ñépp bokk yi sunu ba tey mi ngi jëm ci jarimatu sarq mooy bakkar bi nekk ci sàcc crime bi nekk ci sajj te ñu gis na fii jamono toll sàcc yi bari nan ca lislaam ci boppam dafa xaraamal sàcc ak nit ki la muy sàcc mooy lan moo waral fii jamono toll kenn ku nekk ci ñun soo amee mbokk mu koy def walla ku koy def artu ko moo gën ci moom bu fekkoon na shari'atul islam mi ngi dox ñu di ko atte atte boobu wala ñu di ko yóbbu ci tëjukaay yi di ko fa tëj bokk lislaam bi mu ñëwee dafa woote woot bépp jullit bu nekk ci kaw suuf ñu ormaalal nit ñi seen alal wattul leen seen alal ñoŋal leen seen alal te dafa bokk al kulliyaat al mooy li nga xam ne julli bu ci nekk war na ko sàmmal moroomam jullitam ba lenn bañ caa sànku da cee bokk mooy xurmatul maal mooy war may alal nga ñoŋal alali nit ki sàmmal ko ko warmal ko ko moo waral bépp alal boo xam ne alalu jullit la nit ki di ca jalgate boobaa ormaalatul alal jaambur joju moo xam ci sànq la wala ci fëkk këf mooy agressé wala ci xis muy kooj wala ci riswa muy neexal maanaam bëgg dara muy sa àq nga war caa jot nga neexala ca ngir ñu mën caa jot moo waral maa ngi def foofu benn déclaration boo xam ne yéen ñi nga xam ne yéenay wata ji bu leen nangu ñuy taxaw ca fan yi watee naan wateel leen diw ñu jox leen deux mille wala cinq mille wala trois mille ku ko def lekk nga riba yow ma ko defit def nga lu xaraam ca ñu ci bari bu élection yi di dikkee ña ànd ak parti boobu dana yor seen xaalis di kar nit ñi di leen jox alal naa leen bu ngeen watalee diw ma jox leen deux mille ak i cinq mille ak i trois mille kun ci jox nga lekk ko lekk nga riba ka koy def it def na lu xaraam moo tax mu ne waris wa mooy neexal ngeen bàyyi ci xel wala xiyaana wor walla sàcc bokki yi nag ci lii nag lislaam jog na ci ba araamal sàcc alali nit mu defit sàcc mu bokk ci bàkkaar yi gën a mag ci bàkkaar yi muy kirimit gi gën a mag ci kirim yi nga xam ne da yàq jukko di yàq ab société nga xam ne nit ki nga xam ne yàlla def ko dénk mu yor diine ju set tegu ci njub loola kirim lay doon ci moom nan lay doone kirim ci moom ndax ki yor diine yi set na ci njub ab saay-saay ñëw bëgg ko yàqal ci moom ma war a lislaam wax na nit bu dikkee bëgg a jël sa bakkan maanaam sa alal bëgg koo sàcc ngee nga jàmmaar ak moom ban rey la ca bu boobaa sahiid ngay doon man aqada duna maalihi fa huwa sahiid aw man qutila duna maalihi fa huwa sahiid aw kama qaal kun rey ngir sa alal sàcc bi ñëw bëgg a jàcc sàcc alal yore ngànnaay nga génne say ngànnaay comme moom ngeen jàmbaarloo boo ko reyee yow sahiid nga ndax da nga doon défendre sa alal loolu ñu bàyyi ci xel kon jukkay sàcc bokk yi jukka la ju bon jukka la ju ñaaw jukka la joo xam ne képp ku ko jukka woo ci société bii dan dan laa war a ber ku ko xamit warut a ànd ak yow warul laa def ab xarit warul laa def ak soppe kon yéen jullit yépp na ngeen xalam bàyyi ne bépp alal bu nit ki jël ci lu dul sabab bu shariatul islaam santaane lekk ko lekk na ne neen alali jàmbur ak lan bil baatil te suñu borom wax na ne yéen ñi nga xam ne da a gëm bu leen lekk alali nit ñi cig neen bu leen lekk alali jaamur cig neen cig sàcc ci këf ci trian ci guruj ak suy demee noonu lu dut dafa doon njaay moo xam ne da ngeen ko doon jëndante ba d'accord ci kaw yi kàddu te nag képp koo xam ne da ngay sàcc lépp loo mën a sàcc bu ëllëgee dana la ko yan léeg-léegi nit tëdd ba guddi dem ubbi géttig jàmbur jëli ay xaram yóbbu xar ya ñu mu toll bu ëllëgee des na la ko yan boo dee otob jàmbur nga sàcc noonu bu dee alali jàmbur nga sàcc noonu kon nag ñu bàyyi xel ne lu waay sàcc ci àdduna nu mën a toll bu ëllëgee yàlla daana ko dox yan sa dox te ñi koy jàmbat bokk yi lu bari bari na lool ñu xam ne kon bokk na ci màggaayu ormay alay nit doomu aadama bi mu mu di ko def moo tax képp koo xam ne donte da nekk ci jihaad wala nga nekk ci lu baax ba noppi nag di jël alali doomu aadama yi di ko lekk ci lu tudd ak yaa ngay lekk lu riba yaa ngay lekk lu bon yaa ngay lekk loo xam ne lislaam xaraamal na ko Seydina nu ibnu Xataab koroo xaswatu xaybal dafa am mbooloo moo xam ne danoo ñëw naan ko diw mii sahiid la diw mii sahiid la ñu romb benn waay am ñu ne diw mi sahid la mu ngi nettali xadis boobu Omar ibnu Xataab nee na bi kaay waxee ne diw mi sahid la saxaaba yooyu nga xam ne doon ànd na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay saxaaba ñoo ànd na yonent bi sallallahu alayhi wa naan diw sahid la di si ñu romb benn waay ba ne diw sahid la yonent bi sallallahu alayhi ne leen déedéet ne leen kii maa ngi ko gis ca biir sawara ñu di ko mbugal ci mbubbum jaambur mum sàccoon burda mooy manto bu jëloon wala lu mu dencoon ci suuf mu sulli ko yóbbu bokk kon sàcc yi war nañoo bàyyi xel loolu léeg-léeg nga ñëw ci jumaa ji bokk yi ñu julli ba noppi diw na samay dàll yóbbu nan am ko indi dàll yu màggat a màggat buy dem yóbbu yu bees randalaale sàcc la bokk yi kon sàcc baaxut te daanaka jumaa ji léeg-léeg nga dégg ñu jàmbat samay dàll yóbbu nan ko ñii yóbbu dàll yi ay sàcc la nan wér na la ba léegi dàll yu ñu sàcc dañ leen ko yem loolu ñu bàyyi ci xel bokk yi kon bu fekkee ne sàcc kirim la boo xam ne kirim bu mag la boo xam ne dafay yàq ab société am mujtama la yàq ma waral léeg-léegi sunu nguur yi nguur yi àdduna yii li population bi bokk mu am ko kenn jël ko aaki ko sàcc la kooku tamit sàcc la liñ leen dénk nga xam ne ñépp ko nga jël ko yow di ko jëfandikoo la neex sàcc nga ca moo am ci suñ nguur yi nga xam ne moo xew ci jamono ji dañ lay dénk benn poste rek yow weer wu dee sa salaire lan la war a ameel jëloo ko fay yow na nga boole la li la ngay liggéey mu war a jëmaat ci mujtama bi nga di ko jëfandikoo ak ku la ca neex nga tibb may ko yaa ngay sàcc yaa ngay sàcc loolu kon ñu bàyyi ko xel bokk yi alali sàcc képp ku koy lekk yaa ngay lekk riba yaa ngay lekk lu xaraam yaa ngay lekk tamit ak tooñ ma waral alali sàcc koo ca may wala nga jaay ko ko jaay ko ca yéen leen yéen bokk àddinaa sàcc ngeen sàcc ak kay jëndalul sàcc ñépp ay sàcc la ma a alali sàcc koon kun ko may boo ko lekkee lekk nga lu xaraam wute na am na yeneen alal yoo xam ne mën naa araam ci ki ko ki ko ki ko fàggu waaye mën naa tegal ca kan koy jox waaye alali sàcc moom bokku ca ndax alali jaamu nga jël sàcc bokku ca kon loolee ñu bàyyi waale ci xel kon alali sàcc barke amu ca ma waral nit ki da cay loroo waaye du ca mën a jariñoo mukk ci kaw suuf képp koo xam ne tamit da ngaa sàcc alal tabax ci jàkka wala nga def ci lu baax wala nga di ko dimbalee ay nit yow moom ay bàkkaar dong nga cay am ay bàkkaar nga cay am mais benn yow doo ko ci am ndax alali jaamul nga sàcc moo tax yam sam-sam nee na ku fàggu alal ci lu araam mu gore mu goreel ci wala mu dox ci ak bokk loolee lam koy jural mooy ay bàkkaar ak yu dumay ëllëg moo tax yonent bi saa salaam nee ab sàcc ku yàlla rëbb la ku yonent bi rëbb la rëbb bi nag mooy ñu dàq la yërmande borom bi subhaanahu wa taala laana allah assaariq yasriqu bayda mooy ba ci am nenu jaamur boo ko sàcc boo ko sax yàlla rëbb na la la war mooy dagg sab loxo ndax am na benn jigéen boo xam ne ci waa bani maxzumiya la bokk mooy askanu bokk bu baax la bokk ba mu sàccee ba mu ñëwee ku ne Udaama da ko doon jëme défendre ba ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déggee da da ko dal ci kawam ne ko law anna Fatima bint rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shariqat la qutiat yaddaha ne ko Fatima mii li ma koy jur jur man ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bis bu sàccoon alali jaamur dinaa dagg loxoom léegi nag da ngay am sa mbokk liggéey ci gouvernement bi wala ngay am dëttani wala ngay nangam mu sàcc nga défendre ko. layal ko ban bàyyi ko te fekk kun waroon a tëj pen bu sori la bokk yi kon loolu lu muy nuru fan yi rek yéen a ngi dégg ci xibaar yi jàkka joo xam ne sàcc ba dafa sàcc si jaad ak imam ba ñëwaat ëllëg sàcc mbalaanam wasifa ma ñëwaat ëllëg jël keesu néew ga yóbbu fan yii koy dégg xibaar yéen ko dégg ay bu ëllëgee ban yan ko keesu néegi gi muy janjar janjareeg moom wa man yaqul yaati bi maa galla yowm alqiyaama sëñ bi keesum néew lu ci sàcc si jaada lu ci sàcc mbalaanu mbalaanam wasifa lu ciy jël ban ban lóor la loolu am ban ban koy jël di ko sàcc di ko yóbbu ñu koy wax ci eh, ci presse bi kon nag gars yi bàyyi leen xel ne sàcc baaxul ñuy tëdd ba guddi di dem ci gétti jaamur yi di yeewi xar yi rawatina jamono tabaski jënd sam xar yaakaara tabaski ñu ne guddee yanu ko loolu te tas yaakaar tas yaakaar mënu koo weesu wala nga dem jëliñ yi jàmbur léeg-léeg nga nag yi dafa raaxaloo ci ci ci sërd bi wala dafa raaxaloo ci nangam naan dama koo jaawale ay sàcc la duñu ay raaxaloo kon ñeen ñi am ay tax na nit ñi sax kenn ñi ma wuta yar ay xar fi tool yi ñëpp bàyyi nañ yar xar yar yi nag ak yar yar yi jur ba ci ay lu mën a doon ndax sàcc su bari si rek te léegi-léegi nga dëkk ak sàcc boo xam ne doo ko xam sax guddi gu jot mu roñ la ñiy sàcc portable yi nañ ko bàyyi léegi-léegi nga ñëw ci jàkk ji di julli si nit den nag yow bu nee salaamaaleykum sans portable yóbbu nañ ko sàcc bi julli ci jàkk ji nag wér na ne moom bu ko lislaam sariya nee am nga julleen ak xam ne ko yow amoo julli ndax bi nga ñëw moom teeluwoo sàcc la fi indi woon te bari na ñuy jur jëm ci jumaa yeeg jàkka yi sol masin yu rafet ñu jàppaleen ay góor yàlla ci ay sàcc la lu jekk mu dem kon ñiy sàcc téléphone yi ci jàkka yeeg bitig yi nañ ko baax ñin koy jaayit ñi di ko jaayaat nan koy nan nan nga xam ne ña ngay jënd lu araam na nga xam ne nan ña ngay jënd lu araam loole bokk yi nan ci bàyyi waale xel moo xam ne ngaa sàcc ganaar wala da ngaa sàccu fas wala da ngaa sàccu oto wala loo mën a jël boo léegi des na la ko yan moom ñëpp xam ne lii nga lii nga yanu moom sa ak sàcc sàcc adduna yi ca nga bokkoon loolu nag gàccee ak dara ak dara jaralu ko dara jaralu ko te fi mu toll li gën a garaaw ci jamono ji mooy dangay ngay dox ci mbedd mi rek nit daal di jekk-jekk génn paa na la indi looy def soo amul soo fekkee ne yow doo jaay sa bakkan da nga koy jox rek dem loolu moo fi bari ci àdduna bi agressé bu doy waar moo fi am dem bay agressé nit di tuur di ko rey di tuur ay deretam sacrifice yi nga xam ne am na nga xam ne jaral na leen lu ne rey la dagg say cër nangu ci yow dara ngir crime yu doy suñ réew mi mu amatul sécurité ma waral kenn ku ci nekk wutal sa sécurité jar nañu jënd ay posale ak i cartouches yoo xam ne day dem wutal ko këyit ku la nam ma rey nga rey ko ku nam ma jël li nga am nga nga nga jàmbaar ak moom nit ki sëñ bi soññ bay bëgg a dee dégg nga liggéey fukki at nangam mi at dajale alalam benn bis rek benn waaye ne ko tongeet ñu naan loolu la yàlla dogal loolu la yàlla dogal waaye dogalu bi yàlla ak saay saay rek la kon faaw rek nga jéema a jàmbaar ak moom. moo waral kenn du ko yërëm ab sàcc ab sàcc kenn du ko yërëm ñuy dóor nga naan ay waay yërëm leen ko te yërëmul boppam bu yërëmoon boppam day dem liggéey yi moo waral bokk yi ndaw yi jamono jii maa ngi leen dénk di leen dénk sans bopp nan dem liggéey ca wuti métier te góor-góorlu ji ca bàyyi mbett yeeg karu karu garab yeeg ataaye yeeg yooyu moo waral dong ñu jël alali jàmbur yow nangu woo liggéey nangu woo sonn nangu woo ñaq lu waay liggéey nga bu fas yéene koo doŋeet ab jaam dëgg nga kooko du góor ab jàmm kon nan leen dem liggéey yi jéem a tedd ku bëgg a tedd ci àdduna da ngay nangoo liggéey ku bëgg am àdduna àjjana da nangoo jàmm yàlla waaye bëgg a tedd ci àdduna ba noppi nanguwoo liggéey loolu lislaam du ko nangu loolu lislaam du ko nangu kon yéen ndaw ñi ma ko sañ wax maa ngi la ñuy dénk jéem leen a wuti métier bépp bépp ndaw boo xam ne nag yaa ngi ci barab sama morom yépp buñ xëyee dem liggéey nee nañu koñ ba ñu taxawaalu lu réer la na diwa lu sàcc ñu naa xool leen waa ji dugg na fi léegi moo tax portable yi sàcc ci kër yi dégg nga ak di ko sàcc ci barab yi ndaw ñiy taxawaalu rek ci mbedd yi ci biir kër yi rek ñoo koy yóbbu ndax amuñu métier amuñu jom liggéeyiwul lu waaye teg ñu ne ko doŋeej kon kër gu ndaw lu matal liggéey nekk demal ngi liggéey boo jàng jiwul boo nekkee ca koñ ba lu la bu la ji ñam sàcc yaa ko teg sa loolu nag maa ngi koy dénk mbooleem ku ma maasal jamono ca ngay ndaw nan leen wuti am xëy wuti métier moo gën ci ñun waaye toog rek amul njariñ te yonent bi sànq nee na yàlla bëgg na jaam bu am métier yàlla bëgg na jaam am métier ndax nit ki bu amul métier jéemuta liggéey yi tàllal loxoom di ñaan ak yalwaan képp lay def wala lu mu gis yóbbu ko wala lu mu gis yóbbu ko loolu it na ngeen ci bàyyi xel ma waral lislaam bi mu dikkee dafa indi atte ci ku sàcc wax ne nit bu sàccee nan dagg loxoom ndeyjoor bi fii la ñuy dagg tippet bu sàccaatee ñu dagg loxoom càmmoñ bi tippet xanaa bu daggee ñaar yi lay def wala wala randal wala football boo léegi bu ñu defee bu ñu ko defee beneen tànk bi du muy def kon loolu mooy sariyatul islam ku rey dañ laa war a rey ku jam ñu natt jam jam ba fa mu toll ñu jamaat la ko. ku daggum nopp jaamu ñu dagg sa nopp ku sàcc ñu daal di sab loxo loolu la sam santaane mais yóbbu sàcc baa ngi nii ñu yóbbu police da nga dafa am ay fan ñu génn ko àll ñu génn war ko mu ñëwaat ci koñ bi sàccaat sàccaat sàccaat sàccaat bu yàgg ñu ne kii déedéet nan ko tëj wala ñu def ko lu metti ba bu àllëgee bu génne doot sàcc kon l'islam loolu la santaane pour ñu def ko moo waral loxo sàcc bi loxo bu bonango loxo bu yéesangoog ci àdduna bi loxo bu mat a daggangoo kon Seydina Ousmane ibn Affan dagg na loxo nit boo xam ne benn xeetu lu mel ne orange wala lingom la dagg ci garabu jaamur wala mu fekk ko ci barab jël ko sàcc ko rek Ousmane atte na ko ci dagg loxo ca loola ban ko xaymaa moo tax mu ne ku sàcc lu toll ne rukku diinaar war nañoo dagg sa loxo gaa yi nag lu ko ëpp la ni sàcc léegi-léeg nga dégg gaa mbooloo mu dajale seen keesug daayira dégg nga war cee def nangam benn waay jóge fee na toñ ak yóbbu ko ñu naan da koo barkeeloo sëñ bee moom dafa sàcc barkeeluwut dafa sàcc de barkeeluwut dégg nga yàgg say moroom a ko dajale am fu ñu ko bëgg a yóbbu nga ne ko doñet dangaa sàcc ñu dénk la keesu jàkkee ji nga sàcc ko dénk la ñu war a tabax nangam nga sàcc ko yooyu yëpp ay xeeti sàcc la kon nan bàyyi nan bàyyi xel ne sàcc baaxul nit day am jom nangoo dund nangoo tedd bañ kenn yëpp ko ci àdduna waaye na ci ruq ruqaale lu mu sàcc ñu dem leen kër diw lu sax ñu ne xool leen diw loolu ab jul da koy da koy jom yonent bi sansam nee na nit ki jamono yi muy njaaloo gëm yàlla dañ na ci moom gis nga kii njaaloo jamono yooyu bu faatu woon bu ko àttee ku gëm ndax gëm yàlla dañ na ci moom jamono ji ngay naan sàngara gëm yàlla dañ na ci yow jamono ji ngay sàcc gëm yàlla jën na ci yow yàlla nañu yàlla defal dëgg ak topp rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa ma dhalika 'ala Allahi bi-'aziz aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin may dénkaan rek ci wata bi yéen ju ndaw ñi kenn ku ci nekk ku mat na wata dama la wata ji waaye ku wata ba noppi rikk waaye dama nga toog sa kër coow leeg ne ci barab yeeg nangam ak nangam ak nangam na xuloo beeg xaayoo beeg ñee bi dara matu ko fi lii day jàll kenn ki war a toog toog ki gën ki gën ci dëkk bu ci nekk yàlla na ko fi yàlla teg salaamaleykum wa rahmatullah. boo bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fi ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo wajjahtu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk julli di mbokk taalibé yi yéen ñi bëgg barkeelu si liggéeyub taxawub jumaawul Touba jëm si entretien wala maintenance wàccaa yu màggal Touba dundal weeru koor dundal gàmm saytu armée lu baqiya yi taxawu personnel bi si wàllu social ak yeneen waa association nationale muqaddimatul xidma Espagne ngir indi ak jàppandal si liggéey bii si ndigalu sëriñ bu Bousso imam mi jiite daayira bii ñooy yëgal mbokk taalibé yi nekk si diaspora bi rawatina waa Europe ne nag mën nanoo di yónnee seen i barkeelu si transfert bancaire ci compte association national Muqaddimatul Khidma Espagne ci Caixa Bank numéro ES 17 21 00 15 11 87 02 00 500 647 BIC Swift Caixa Bank BBXXX mbokk yi ku ci nekk ci Sénégal mbaa ci Afrique compte Orange Money yi mooy compte yi nekk ci moomeelu daayira bi di 77 696 86 17 képp ku soxla yeneen i leeral jokkoo ak daayira bii yi si numéro yi ñu bëgg joxe mosquée Touba 77 434 33 15 wala si 76 697 60 41 bu dee Europe jokkoo leen ak Serigne Assane Diop si plus 34 632 581 998 Serigne Fallou Dia plus 34 631 216 262 jumaay Touba ji nag Serigne bi nee na yàlla sunu borom may na ma ab tabax bu ne seng bu fi des ba aljana waxoon na it ne ku feeñ si liggéey bi. yi nga feeñ ba faaw yàlla nañu yàlla dimbale ñu mën di si jëf ba faaw te yàggal fi sunu kilifa gii Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ak mbooleem njabootu Serigne Touba gépp jërë ngeen jëf